waaw ñu ngi taxaw ak ak euh, Moussa Ndiaye international sénégalais. bi nga xamante ne bii vraiment il fait les les jour jours de de l'ASC jamono de surtoutment les beaux jour de géejawaay laay wax Moussa Ndiaye du du Moussa jamono rek Moussa Ndiaye yu géejawaay bi yëpp la. mu nekk tey mën nañ ne moom lañ ne mooy représenté tey jour yi nga xamante ne bii ay dara formé na leen. à part euh, Bouna Koundoul mi ne woon international A tey ñun Moussa Ndiaye lañ am moom la ñuy sagoo. tey ñu ko doon laaj ci Moussa Ndiaye nan nga dundee tey mémorialu Tidiane Aidara bi. non avant maa ngi nuyu ñëpp quoi di nuyu ñi fi nekk yëpp xam nga samay père ñoo fi nekk ak samay ñoo xam ne ñu ñoo passé ndoo fii avant xam nga gars yi yëpp maa leen bëggee quoi di leen nuyu ñoom ñëpp xam nga non lii moom saa mën naa ne mësuma ko fekkee quoi parce que dama doon fekk ma dugg académie affaire yooyu tey maam am occasion fekk ma fi quoi moo tax ma ne tey noo def ma ñëw parce que. parce que fii ñu taxaw nii fi lañ débuté quoi temps booy depuis xale fii fii nii bi ñu taxaw nii fa lañ commencé ay dara yàlla na ko yaara xale àjjana xam nga ñuy entraîné depuis xale ba ni ñu màggee ba maa dem aspire noonu si moom laa defee lépp ñun ñëpp moom lañ defee sama morom yi nekk fii yëpp mooy loolu moo tax ak fu ma mënti dem fu ma mënti yegg sama xol mu ngi fi ak sama xel quoi yàlla def bii paa ma ñëw xam nga fekkee ko ñëw ak gaay yëpp xam nga ñu kiwéndoog ensemble parce que lii moom moom moom rek lañ ko mun a defal loo xam ne ñëpp dañ ciy gis suñu bopp quoi famille am xam ne ñii xam nga fàttewuñ démb affaire yooyu te duñu duñ mës a fàtte démb quoi ak fu ñu mënta dem fu ñu mënta yegg rek suñu xel day nekk fii te duñ ko mës a fàtte quoi di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla xaare ko àjjana xam nga di ko ñaanal mooy loolu quoi. ñu lay wax Moussa par exemple dégg nañ ni yow dund nga ak ay dara lu neex. Hmm. te yàlla na ko yàlla yërëm vraiment. dañuy dégg ci say wax da ngay wax naan moom bokk na ci ñu la forger. Hmm. vraiment ñu bëggoon nga wax ñu tuuti anecdote rek li nga xamante ni bii dund nga koog ndem si yàlla si. si si mun naa ne wax ne sama papa la quoi sama papa la mhm. loolu amu na parce que dafa dépassé woon entraîneur mhm. dañoo entraîné mais xam nga entraîneur dañoo entraîné ni dem mais day entraîné pare su demee ñëwaat suñuy kër toog suñu parents affaire yooyu xam nga même nekkul football bi kase même cadre jàng bi dañ doon forcé de trop parce que maa ngi fàttaliku benn bis quoi ba ma benn bis jàng ni ñëw mais si dana ma yow doo entraîner doo football loolu mooy punition bi. kon ça veut dire que moom dañu doon dañu doon football mais dañu poussé mun naa dem. noonu mu manqué ñu trop benn complice bi la woon quoi parce suñu kër des ma dem këram xam nga mu yedd ma teg ma si yoon affaire loolu man instant bi su ma demee ba ñëpp xam ma Moussa Ndiaye yàlla ak moom moo tax quoi mun naa ne moom moo formé lépp quoi gars yi dañoo ñëw rek xam nga eggal yi mais lépp moo moo tax ma def ko oui di ko ñaanal quoi. léegi Moussa ñu lay wax par exemple euh, li nga xamante ne bii témoigné nga ci Aïdara koo xam ne ku fonkoon sport étude la. Mhm. léegi yow par exemple euh, école football bi mu fi bàyyi. xale yi nga xamante ne bii ñoom ñëpp léegi ngalax lañ tudd. surnom bi ngalax ngalax ngalax xale yooyu yow yan conseil nga leen di jox. waaw ñun xam nga ñun ba ñuy nekk fii nii. Mhm. ñoom ndeysaan xam nga fekkee wuñ kii bi quoi mais mën naa ni ay ah, ah, dara moom kii woon na amoon na booy yoo xam ne mu leen di formé comme genre comme su fi nekkatul sax. Mhm. même daroon dem ay voyage wala dara am ñu fi bàyyi. Mhm. xam nga di am lu mu tant que ñun moom su demee am na ñu fi nekk comme coach yu fi nekk yu bari yoo xam ne mën nañoo encadré booy xam nga. lépp na maa ngi koy teg si cadre liggéey quoi parce que soo nekkee booy faa ngay déglu ñu lay jiital munoo nekk booy mi nit wax nga tontu ko fukk loolu loolu moom du naan doo dem fenn xam nga moom moo tax quoi instant bi di leen wax ñaax xam nga ñu liggéey mooy loolu di jàng xam nga toppatoo di déggal seen waajur xam nga déggal seen coach respecté entraînement mooy loolu loolu rek mooy secret bi mais pas leneen quoi boole si leneen parce que football dafa dafa fuir quoi soo tegee leneen rek après loolu da lay day këpp sa kaw. oui loolu laa wax gars yi ñu ñaanal ko quoi. dernière question nga lax balaa ñu lay tenir. Hmm. léegi dañ lay wax ne la par exemple euh, def nañ première édition jàll na tey deuxième bi vraiment gën na dàq première bi ñu defoon. ñuy préparé troisième édition bi. Hmm. boobu moom dañuy ñaan yàlla sax fekk nga gagné coupe d'Afrique. wala nga gagné ballon d'or wala hmm. dara. mais troisième édition bi yow nga lax yow yan intention nga ci fas yéenee wax ak ban discours nga fas yéenee jàlle pour gars yi ñu préparer ko incha si si parce que bañ defee première édition bi mun naa ni bii moo dàq sax fekkee ko woon demee image bi ma gisoon ak bii nii parce que bii instant bii nii ñëpp yëg nañ ko beloo fekkoon gars yi xamuñu ko yëg noonu ak ñu jàpp. mais ak jour mu tombeel nii ñëpp yëg ko ñëpp ñëw vraiment paa yi ñëpp kenn kenn desul quoi mu dem ba parce que ñun ñoo mën a fësal costume mën naa ñëpp xam nañ ko fii mais ñun ñoo ko mën a fësal ba kenn du ko fàtte parce que mënoon a ne ñëpp na fii maanaam liggéey liggéeyal fii nii fii Guédiawaye Aïdara mun naa ne liggéeyal na Guédiawaye pas jamono kase mais Guédiawaye bi yëpp parce que booy fii ngay dégg Guédiawaye yëpp si loo xam lañ jaar ak ASC bu mu ti dégg si loxoom ngay jaar kon ñun moom la ñuy sagoo quoi ASC la ñuy sagoo mun ñu def leneen loo xam ne moom la ñuy sagoo quoi xam nga di ko ñaanal xam nga yàlla yàlla xaare ñun moom ñu ngi fii ñu ngi fii teewal chaque jour mooy loolu te duñ ko mos a fàtte quoi waaw pour ok merci merci.